làmb ñu fii fii moom si dama dama jox ko balaa moom ndax waaye nag maanaam ñoom ñu dépassé leen mooy waaw waaw nañu fexe ku nekk rek waaw yeex rek ki nga xam ki nga xam fi waaye parce que waa seen seen ñu ngi si kër gi ñu ko seen lu muy wax maanaam daal su ko bëggee dégg moom tamit bi nag moom teg la rek teg nag ay wax la si dara moom war na ne moom maanaam xale la dinaa ko gis ba demee lan su ñëwee rek li ñaan ko cal lim ko xaw ma ko cal limoon ko mooy yóbbu tool gaal yi dañuy jógee jóg man naa loolu dafa jafe ah waaye bu nekk moom taxaw la. mais li ko doon def ba léegi ñu war ko wax dëgg sax. xamante ne bii dañu baax. seen seen wax dañu ko wax aussi dafa baax day sànni di sant waa Medina waa Pôle Avance di sant naar bi max bu di siis may sant naar yëpp indi na yëpp di sant waa Medina di sant presse bi yëpp parce que aw ma seen fay Habib maa ngi sant bu baax a baax bu max bu di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa ba émission su mois de ñu ngi ñaanal ñëpp di sant leen gërëm parce que ñun ay xel la ñu si yoon di liggéey di ñaan Sénégal yëpp di ñaanal ñu parce que su ko defee moo ñu jëlee ñoom fenn yóbbu fenn di sant sponsor bi nga xam mooy Pôle Avance di jaay amoon ñu ñëw ak ñëpp ñëpp Ndakaaru maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di ñu de ay sama grand frère Omar di ko sant bu baax Babacar dinaa loolu bu ma sant yàlla bu baax maa ngi sant aussi benn kàddu yi frère TDR moom loolu bu jàpp naa ko bu baax a baax sponsor la ko waaw di ko sant bu baax TDR kàddu yi frère maa ma sant bu baax di ko gërëm di ci gërëm ñu mel ni sama maman Kader naa tàbbi ko maa koy sant di ko gërëm sama xarit Faye Fall bu baax bu ma ko sant ko sama jërëjëf xam naa ko yàlla yàlla jàmm yàgg doomu kër gi ak benn kër maa koy sant maa koy gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ma jàpp nuyu sama xarit PDG Omar Sow di ñaan yàlla suñu borom taw feex ak taw ci lépp lu sax ma ñaan taw ko di nuyu ko di sant ñoom fi ñu ne naan jaay daal di bambaaw la wala ñu ko defal leen ko ko am mo la ma ñu ko leen ay dëgg ñu xane fi sant ñi nga xam ne ñu tëdd ñi ñi waa gël ma la ñu ko la daan dëgg ma yéen yéen su ma su ma eggee rek yéen la parce que alquran parce que lépp yéen la xam nga Issa dafa am religion bu baax Issa Issa ko ko suñu jigéen bu dul ko ko suñu waa di sant di mu ko di di sant ba di sant sama parce que Issa dafa xam ne nii làmb la rek léegi nag wax incha allah dafa lay di baax ak di bës dafa di ci làmb dafa pare ko di may may ñu ak ñoo ko incha allah dafa la wax ñoo ay ma sori xam nga loolu di lu lu lu ji taw ji nekk incha allah parce que bii day faral di jaay amateur bi su ma teel amateur bi daal di ñëw seen loolu jamono te xam naa ñu ngi ay jàmbaar loolu dafa am sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp mu wax Sénégal ñu am baax a baax dégg naa la même si yow da nga ñëw boo ko amee si nga xam naa ne dina yàggal boo ko amee boo ko. ko koy dëkk mais ñoom ñaar dañuy xëy na seen kii la loolu da ngay def voilà maa ngi lay sa dëkk bi fa ma bàyyi ko ma ko waxtaan rek parce que yow yaa ànd fu mu nekk. dëgg la dëgg maa ngi lay ziar. Thank you.

am na solo. sëñ la lay wut rek ñu am ñu lay seetaan. Thank you.

bis bi ñun. waaw maanaam bi ñoo ko gën a seetaan di nga gis wanteer bu seetaan station bi ko parce que bis bi bàyyi si dara. waaw kon sëñ bu baax baax waaw beneen xarit bi mooy si gërëm ñu ngi woon ak loolu moom ñàkkul. loolu yi ñàkkul. ñàkkul waaw moom ñàkkul. bis bi nga ko toog ne ko seetloo. waaw boo koy gëj a seetal ñu mat ñu mat ay junne ah. maa ngi jéem a laata ji amul nag ñu nekk dund. bu dara nag ñu dund nga faar. Ah. waaw li ko wax ne moom. xale yi ñoo ma yor nag jëlaat leen nen. yéex a leen dem yàlla ngeen xamal sax gis nga waaw bu ma saa la waaw waaw bii moom toog na la awreew soxla man moom la réewu bër parce que taam awre ma ne la ñuy toog bu demee ah boo duggee si biir tëb bi rek tëb loolu mais sax mooy loolu di tësal saa France fi di tëb ñu di wax rek te bu muy jaay ba si rek bu dugalee ko ñu jàpp xale yoo ñu ngi si ñuy waajal ku ñaan koy wóote ba nga war ñii ñuy baax jël ay bési yu bees tax ñu la ko yëpp bis bi kon képp ku jaay ba si rek gaa yi nga war a jàll rek képp ku jaay ba si rek bési bi ba koy jaay ba la war di wér war mu jàll dafa dund parce que suñu événement maa ngi war si loolu ñu ko nii kii xam nga dafa taxawoon ne wóoyu daanaa ba moolu bii xam nga mosoo gis ko yëngu tànkam ba moom du nga xam ne moo ko yëngu waaye tànkam fii ci biir waaw du ko maa mbay baay maa mbay baay wër si bis bu baax gis nañ sa ñaareel te ñu coono yoo mel ne yëpp du waaye bis bu suñu bis la ñun alors dëkk boo xamante ne dañoo dañuy jiitaloo dañuy tawoo ba mën a waaw bu tawee mu ko nag nga ñëwal la tuuti man maay xale maa ngi def lépp. waaw loolu da nga def léegi yow da yaa wax li nga li nga bëgg a wax dégg nga dégg nga ñun daal mel ni daal boo déggee nii ci ay wax yaa ngi dégg ndox def nañ. waaw kon soo yor si loolu. parce que parce que parce que noonu la moom la ñu daan doon daal ko. ah man ma xam ne daal ko tourné yaa ngi ko siwise siwise. man la ñu wax ñu

di woo tàmbalee moom xam naa ne rek woo bàyyi maa ngi woo tàmbalee waaw waaw yëpp nekk yëpp di woo sama kër yi nekk yëpp boor boor yëpp waaw gis nañ ci may am ay wér nga wane moom nga wàcc ku nekk mu tëdd waaw maa ngi koy déglu naan lépp waxal nekk ci tefes gi ak jaamu waaye ñoo am tefes te loolu moo xamante ne foo toog génn wala foo toog jaarale ko wala mu ngi war amaana tàmbale sax dëgg am na jeexamaale lépp rek waaw comme wàllu wàll yi am na fi mu dëgg nekkoon bi mais amul benn suuf waale kon ñun ñooy déglu man xaalisu jël moom bu bëggee dégg man xaalisu jël dañ may génneel xaalisu jël waaw xaalisu jël dañ may génneel kon moom bi nga waxee dañu wax si làmb yi làmb man làmb yàlla nga wax ci yàlla moom ndax làmb bi mën naa yàq xeex bu métti mën nañu leen xaar xeex jam jamante ba ba pare doo bëri loolu la gars yi bëri waaw man yow ma sama supporter man bu dee da xeexu ma sax kontaanu ma ah. parce que dañu faamu baale di sant di sant sama poche kii bi Diop kër gi si nii. à semaine de fii. bu sax di gën a yóbbu yow wala yóbbu ñu may man laa la wax su taw loxo kii wala may taw kii nii pour moom nee na dafa mën a teel. moom nee na dafa saf. waaw dafa saf. waaw xam nga saf saabu. waaw te ñaari bañal yu bëri. waaw si lii bëri. waaw waaw. alhamdulilah. alhamdulilah.

kii champion la rek kon bu taxawaay bi dafa bu champion kon su ma ko jaayee daal ma champion waaw nangul naa ko nag parce que man daa bëgg laa ma nangul ma waaw parce que maa bay te bu jël parce que kii bii bii yooyu loolu ko naan la loolu na ko dal waaw xam nga rek boo ko defee talal bës ba nag talal duma waaw wax naa ko wax na julli dana doon xel bës ba nag talal duma talal duma waaw bés bu ma def ma leen. yow maa ngi def lépp moom la tax a yëg ba léegi tax a yëg rek maa ngi def lépp maa ngi maa ngi am yaa man maa ngi mobilisé man maa ngi def lépp maa ngi bëre bu dee yëpp waaw dégg man maa ngi def lépp man maa ngi mooy kii. mais wala la nga def côté boobu day am moom sax parce que loolu nag mu koy xaar bés bi la boole. sant yàlla amaana bi ñu ko waa moom sax dafa bëri woon loolu maa ngi nekk fii ak sàll de sàll ci yoon bi dinaa jël ñu dëkkal collègue bi pour mën a maanaam quatre ans ñu leen jël ak sàll rek parce que amul laan baax kari ma ne la ñu wax amaana ñun suñu ay déplacement benn gaal la ñu fay ay trente cinq benn gaal ñu sa ay mat vingt gaal ñu jël ay dix borom yu jógee ma ne loolu doyul da nga bëgg a doon yeneen cinq mille quinze bëgg a doon laaj nii xam nga démb la mu jël dem xaalisam muy nii bu ñëwee ñu war a am taxawal am. 15 bopp. 10 bopp laa jëloon ba ko doon yeneen 5. muy 15. waaw 10 wóor yëpp la. ah làmb ji waaw làmb ji nag nag ak soxla gën ma ko bëgg xalala ba ci seen fàll mu wàll amaana combat yi tawi sax ñoo ko mat xam xalala rek loolu loolu dara loolu dara loolu dara kenn dara benn bu ñëwee rek sama am na solo bu ñëwee rek man maa woo ko dama dëgg naa woo wala ko dëgg loolu xam ne ko yëpp ñu woo mooy daa loolu fan ma borom xam nga moom bu ñëwee rek ma si gën waaw léegi woo dana tàggoo man man ma ne si woo dana woo kon li may wax mooy. jàngatu ko mooy. waaw képp kuy président rek na sànq ba seen seen gouvernement yi. fonctionnaire def des sacs jënd sa solo si yàlla di créé xam nga di ko taalee di ko def waaw di wóor balaa wóor mais affaire bi man laa affaire bi si la. loolu de moom moo ko am affaire boobu affaire bi su looy tàggoo dina jël na 10 dollars dina doon yeneen 5 muy 15 yi. 5 moom bu dee ko ñëw rek waaw. I'm going to care for it and inshallah I'm starting work. Now I'm out of work. Inshallah. Thank you. nekk loolu laa doon lay seetal waaw li may tàggoo mooy man li may ñor sa bopp rek lan la may. voilà li may tàggoo si man maa bu may caw maa bu may caw dinaa nekk bu góorgóorlu bu baax dina taxawaay si bu baax taxawaay bu tudd bu ñu tàggoo fu nekk maa bu may caw